15 août di bisu Assomption askanu Sénégal di ko faral di féete ci plage yi tey plage yu BCEAO mu mel ni askan wi génnaguñu li ko waral moom moo di taw bi bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni ñoo nekk si plage bi. ku ne xam na ne taw moom sénégalais moom buy taw du bëgg génn même pour mu dem marché sax day xaar ba mu sëbët. waaw ñu ko doon waajal de waajal bu baax a baax mais yàlla moo ñëw quoi. tey da taw mais après ngoon peut-être clients yi dinañu wàcc incha allah. ñuy am yaakaar ni dina soppeeku fii ak ci kanam ndaxte jël nañ bépp matukaay ngir dalal askan wi ñëw ci plage bi. waaw gis nga def nañ mise en place yi def nañu fëgg nañu bassin yi nettoyé nañ ba mu set bon muy des bon si nit ñi ñoo si des au cas que bu tawulee bon am nañ yaakaar ne dinañ ñëw ko franchement. yaakaar de instant yi moom taw bi arrêté na de. mais feex ngoon moom dina am ay nit moom guddi gi lay gën a am nit quoi mais chaque quinze août moom day taw bi moom miis nañ ko quoi chaque quinze moom day taw. ndaw si ñu fekk moom ci plage bi muy xamle ni bi mooy yoon bu njëkk muy féete quinze août ci bile plage waaye itam mi ngi yaakaar nit ñi daal ni ñëw fii kanam. waa boo gisee nag euh, ñu ñëwoon fii nii pour béggal suñu xol rek la woon waaw ñëwoon fii bëggoon a forcer affaire yooyu noonu yaa am gën a xam. loolu kese la. wax dëgg fa yàlla nag 15 euh, août maa ngi doog a génn nag muy ren ah ren laay doog ñëw nii plage affaire yooyu noonu. mais xam nga ak taw mi daa xam nga tey dafa xëy taw te bu tawee géej gi day yëngu yaa am gën a xam loolu kese la. xam nga dèjà géej yaa ngi nii booba léegi vagues yi va et vient loolu kese la. moo tax instant yi bëreegul nit mais gëm naa ne ci kanam dina bëri nit. 15 di Ascension askanu Sénégal di ko faral di féete di dem ci plage yi ngir féexlu ak a waxtaan mu mel ni bi yoon jaww ji àndu ci ndaxte taw la daal di xëyee waaye lu mu ci mënti doon jaaykat yi ñu taseel di xamle ni fii ak lu yàggul dara askan wi dinañ wutal si bile plage.